asalaamaaleykum mbokk yi bàyyi xel asalaami point net dal leen ak jàmm seen rubrique sur le net ñu dooree ko fii ci Touba ci 38 personnes yi nga xam ne ñoom lañ xamante ne xamal ne ne dañoo am feebar bii di coronavirus ci jamono ji ñuy wax ak yéen source a ñoo ko xam ne ne 38 personnes yooyee kenn leen bët ndax ñoom li ñu jàpp ne mooy feebar bii ñu leen di tuumaal nekkul ci seen biir yaram loolee tax na di kër docteur xar nañ seen tànk tubéy fas yéene wër ñi nga xamante ni ñoo jaxasoo ci biir nit ñi ñu ne dañoo xam ne dañoo amee feebar bi fas yéene leen wër ba fépp fu ñu nekk rek ñu jàpp teg leen loxo indi indiwaat leen fii ci kër docteur pour saytu leen bu baax seen wér-gi-yaram kàddu yi nga xam ne moom la Mary Teuw Niane yëkkati woon jëme ko ci la Touba ak gàmmu loole wax na ko xat ndax kii di Cheikh Abdou Bali yëkkati na ay kàddu tontu ko nee ne ko kii nga xamante ni moo di Serigne Mountakha Bassir nekkul koo xamante ne nii dañ ko jox ay kàddu di ko digal li mu war a def heure bu waree joxee kàddu wala mu war a digle dina jug waxal boppam ñu desandi ci xibaale sur le net ci dëkk bu sell bi di Touba Touba ci kanam amaloon nañ cérémonie ngir tàmbali liggéey bi jëm ci tuubaa muy taw bi nga xamante ni bu xasee ba commencé dëkk bu sell bii di Touba foo jaar fu nekk rek ndox lay doon rawatina ñu jubal bis bu mag di lu Touba ñu xam ne bu gan yi dee ñëw bu fi ndox mi jógewul dinañ am problème loolu moo tax kii di Serigne Mountakha Bassir joxe woon digal teg ko ci loxool jëwriñu abi bu Mbacké mu ànd kook rakkam Serigne Mourtala ñu fas yéene liggéey liggéey bu am solo yenn ci site yi nga xamante ni moom la waa Touba ci kanam tànnoon pour liggéey fa fa nga xamante ni fa la ndox ya di ëppee gis nañ ni ne liggéey boobu tàmbali nañ ko. ñu dem ci xibaari bitim réew ci seen rubrique sur le net. explosion ba amoon ca réew Liban. or ba nekk ca Beyrouth nga xam ne lu toll ci ñaar téeméeri nit ñàkk nañ ci seen bakkan juróom benn junni nit. am ci ay gaañu gaañu loolee tax na ba population ba nekk te réew ma am lu leen metti ba tax ñu wàccoon te réew ma def manifestation loolee tax na kii di premier ministre Hassan si ne ndaxte nee na lenn warulu ko lu dut manifestation bi waa réew ma doon def ñenn ci ndawi réew ma doon def manifestation am lu leen metti ba tax ñu ne képp koo xamante nii nekk sa loxo laale na ca ci askan wi mer nañ ba fëttu di joxañ baaraamu tuuma yenn ci doxaliinu nguur gi. ñu ànd ak yéen ba léegi ci xibaar yi bitim réew mi ci seen rubrique sur le net ci réewum Russie. njiitu réew ma Vladimir Poutine di xamle ne feebar bi di coronavirus. trouvé nañ benn vaccin boo xamante ni mun naa aar ki nga xamante ni moo yore doomu jàngoro boobu de coronavirus kii di njiit réew ma di xamle ne di dalal xelu askan yi di xam ne vaccin bi lu wér la te wóor commencé nañ cee testé seenum réew. jëwriñ ji nga xam ne moo yore wàllu wér-gi-yaram ci réew moomee mooy xamle ne vaccin bi mën naa génn ci ndorteelu janvier 2021 mbokk yi topp asalaami TV lii lañ leen indiloon seen rubrique sur le net ñu leen di jaajëfal bu baax ba yeneen i jamono.